sàmm bu yore ay jur dafa fexe ba aar leen si till waaye jur yi nan la ñuy muccee su fekkee ni sàmm bi si boppam sàmm bi si boppam mooy till la pays musulman yëpp loolu moo fa am kon yàlla wax ni man mën naa leen gérer ak nu mënti doon mën naa leen mais seen diggante yéen waaw moo tax yonent bi ndox si Hajj Malik ñi mu jëkk ñi mu jëkk taggee ñi àndoon ak yonent bi saaba yi udlun euh, kiraamu dañu mandu te tedd maadinan si askan ak cosaan لكنهم نالوا لدى التقسيم waaw لدى التقسيم nee na bi nga xamee ni ñi ngi séddale xayru sihaani dafa mel na li si Hajj Malik doon séddale wala yonent bi di ko séddale wala yàlla di ko séddale si biir këram suñu waajur yi ñu am cër bés xam nga saam itam mooy action dans une société ashum mooy euh, euh, l'action ta part du capital dans une société dans une société financière une société de business nee na bi yàlla di séddale action yi si société bi dafa mel ne ñoom kenn ëpplewu leen action action yëpp ñoo ko jàpp moo tax ñu ànd ak yonent bi ànd bi ñu ànd ak moom wa bi xayrihi ñu nga xam ni dañu gis jukkoom mu neex leen ñu topp ko am na ñu nga xam ni dafa war si naaru góoram di leen làpp di leen làpp di leen làpp ba nu nangul ko Moustapha asalaamaaleykum nee na dafa yore jaaseem di leen làkk ba nangul ko yéeg ci fasu naaru góoram ñeneen ñi nag dañu gis jukkoom rek ñu doy ko ñu dugg si diine islam waaye ñooñu nga xam ni sa azal bi yonent bi wootee ñoo jëkk nangu ne daanoo am si yiw lu nga xam ni lii kenn amu ko waaye loolu lan moo ko may yonent bi am na garantie bi bu ko yàlla jox waaye itam ñi nekkoon nag moom ànd gor ak nawle yàlla daf ko tànn ba pare tànn tànnal ko li annahu laqad qaala alxaqu fi lqurani kalimatan tutina manzilatana fi lkawn kulli kufranan wa ilhaadan wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursinina innahum lahum mansuruna wa inna jundana lahum ghalibuna dafa am benn baat bu yàlla wax ci alquran waaw mu jëmale ko ci képp ko nga xam ni kii yoon yi nan ko araaytum rasulan baasahu llahu bi risalatihi summa hazamahu aadaauhu yàlla moo garanti victoire wa bi xayrihi wa bi xayrihi sax su fekkoon ni woon amul yàlla garanti na victoire yonent yépp waxuma rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn yonent bu nga xam ne bi yàlla mës na ko yónni te bim ko yónnee noon yi taxaw nanu pour mu bañ am succès si mission bi ko yàlla yónni mais mësuñu ko mënal dara li mu bëggoon samp samp na ko est-ce que yonent yàlla Isa réussir une mission bien que jéng nañ ko est-ce que yonent yàlla Moussa réussir une mission est-ce que yonent yàlla Ibrahima réussir une mission est-ce que yonent yàlla Muhammad réussir une mission mission bu nga xam ni bi te mission yonent yooyu yépp ñi naan euh, diine ak politique diine politique la ba mu jeex alquran aaya yi wax politique moo ëpp aaya yi wax jullee koor parce que alquran qisasul anbiya yi anbiya yi lan la c'est la question du pouvoir yàlla dafa yónni yonent bi ñu fekk fa pouvoir pouvoir boobu nongul yonent yi ñu yónni ñu combattre que le le débat le combat était un combat politique du woon leneen yonent bi soo gisee waa Qurayshi mbugguñu ko woon accepter le débat était politique le combat était politique la ilaha illallah est subversif dafa commencer par opposition là li fi nekkoon yëpp nga dàq ko te li nga dàq si ni fi nekkoon yëpp le pouvoir politique moo si jiitu looloo tax waa Quraysh yi taxaw ni fi yonent bi du fi sampo c'était un problème de pouvoir la ilaha illallah pose le problème du pouvoir ñi koy contre yëpp dégg nu diine nanu jàng yoon sëñ Touba moo ko dégg sëñ Tuubaa li mu firee laa ilaha illallah firee wu ko laa ilaha illallah daf ko firee kenn du buur lu yàlla kenn du buur lu yàlla te laa ilaha illallah du firi lool mais sëñ Tuubaa xam na lu muy def la ilaha illallah qui était déjà subversif et doublement subversif du fait qu'il remet en cause l'autorité coloniale laa ilaha illallah ni Tuubaa du fu nekk doo yàlla yàllaay lépp donc doublement subversif moo tax benn américain di xool di xool di xool mu ni Sëñ Tuubaa yéem na ma no king but king but Allah but God no king but God no Rasulullah dafa benn américain bu bind benn thèse de trois cent cinquante pages sur ni sëñ Touba firee la ilaha illallah no king but God mu ni lu tax sëñ Touba firee ko noonu mu def ci thèse de trois cent cinquante pages mais malheureusement l'élite intellectuelle de ce pays ne connaît pas son histoire benn américain moo jóge Amérique seetlu loolu bind ko waaye ñi nekk si l'élite intellectuelle formatée à l'école française xamuñu ko jànguñu ko c'est la culture de prédation li mag ñi bind li Seydi Hadji Malick bind li Sëñ Tuubaa bind li El Hadji Omar Foutiyu bind jànguñu ko jéemuñu ko xam mais loolu nag ba kañ barki dama dama dugg si benn oto en Belgique ñu teg sama bandu Pape chair benn bande boo xam ne bi 78 la ko def ma gis la profondeur la pensée de sëñ Cheikh xam-xamam intelligence am dégg bi mu dégg doomu aadama dégg bi mu dégg Sénégal dégg bi mu dégg àdduna bi dégg bi mu dégg doo euh, diine ak dégg bi mu dégg tarixa bi ak dégg bi mu dégg Sénégal ak sénégalais ma ni kii war nañ koy jàngale suñ ko dañ ko jàngale université jàngale ko si xale yi donc yàlla dafa wax ni jox naa garantie ni doo dox ba gis benn yonent bu nga xam ni maa ko yónni noon yi nag mën nañ ko mën mën nañ ko sonal mën nañu indi gàllankoor waaye nee na lu mu yàgg-yàgg yonent bi mooy moo mooy moo moo leen di gañe à moins que qu'il y ait ixtilaal mu am ixtilaal iza xtallat chartul iman wa chartul islam illa iza xtalla chartul iman wa chartul islam mais tant que al iman bil qalbi wa qalib ñaar ñëpp daje ndax yàlla soo ci bàyyee benn si charte yi rek amul tol yow affaire waaw jullit nga rek ci tur parce que Moustapha laa tudd wala Mansour laa tudd wala Abdul Aziz laa tudd te chartul iman ak chartul islam doo ko doo yooyu yàlla ne suñu sama yoon nekk waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moo nu fi dagale daf nu jox ay leçon yu bare bare yu'tina durusan mutaaddida nahnu maa yahudiya wal islam wal islam jaa baada almasihiya والمسيحية كانت ديانة رهبنة li anna almadiya fi yahudiya baada Moussa taxat ala kulli shay ñett ñoo fi am diine islaam diine yahud bu yont yàlla Moussa ak diine Isa l'islam ñëw ni l'islam rek moo moo si génn l'islam ñëw ni ñooñu ñëpp sama ay yonent lanu dam leen di reconnaître l'islam bés bu ne mi ñuy jàngal leçon dans toutes les idéologies yi am dans le monde l'islam rek ngay ngay amee benn philosophie bu nga xam ne wuutee naa yow xalaat waaye ñun ñaar ñëpp a nekk si dëgg donc si islam la am amul feneen maa yow am na benn problème bu am wuute nañ si xalaat waaye ñun ñëpp am dëgg te bés bu ne nga teg si sa ñeenti mazahib la am almalikiya wal xanabila wa abu xanifa wa shafiiya ñeenti mazahib yooyu moo am ñeenti mazahib yi wuute noonu si xalaat ñeenti mazahib yépp nekk si dëgg dëgg la wala de kan moom ñeme dem Égypte ni shafiiya moo fi nekk nekku si dëgg kan moo ñeme ñëw fii ni fii malikiya moo fi nekk leen si dëgg te ñun ñëpp nag ñu daje màkka makka soo dee commencé li ngay commencé safaranta mooy lan mooy tawaaful xudum ñun malikiya waajib la si ñun soo ko deful da ngay rendi yàqul sa aj waaye soo ko deful da ngay rendi tawaaful xudum tawaaful xudum sunna la si xanaa bi la suñ ko deful du nu rendi su la neexee ñu bañ ko def tawaaful widaa sunna la si malikiya walakin waajib la si la donc wuute te ñëpp am dëgg am na ñu nga xam ni fatiha ñi ngi koy commencé bismillahi rahmaani rahim am na ñu xam ni ñi ngi koy commencé alhamdulillahi rabbil alamin est-ce que julli yooyu yëpp dagan na wala daganul est-ce que wuute na nu te ñun ñëpp ñoo nekk si dëgg rahma yàlla moo bëgg loolu waaw même ni ñuy jàngi alquran wuute na nu koy jàngi waaye jàngi yépp a baax xoolal ni islam di la formaté ci ouverture d'esprit nga bàyyi xel ki ngay wax ak kan la nga xool nan nga koy nga koy gérer waaw donc yu yahudiya am yahud ya dama am benn lu nga xam ni mooy seen màndarga ñoom matériel rek moo leen intéressé daa jàng euh, tawraat ba mu jeex doo si gis affaire ibadat affaire matière rek moo leen intéressé nga dem masixiya wax naa ni moo naan diyaanul rahbana affaire ruuxaaniya moo leen intéressé wuute nañu ñoom ñaar waaye li ñuy wuute wuute dem nañu ba def benn livre bu nga xam ne isa al kitabul muqaddas le livre sacré waaw wal yahudiya kanat maddiya فلذلك إذا تقرأ كتابا كثيرا لا تجد فيها تذكير يوم الآخرة يوم القيامة sax doo ñu koy wax ci yi masail yëpp masail maddiya waaw falamma asrafu fi lmaddiya jaa allahu bi isa yaadilu aw yuaddilu lmisan waaw ba jaa bilruhaniya mutlaqa fa lidalika yati bilinjil xukmu la yati bilinjil xukmu yataallaq bilxarakatin fi dunia kullu kullu ak kullu alxuduu lil ilah alxuduu lillah yonent yàlla isa dañ ko mës laaj masala masala si wàllu miraas mu ni ana lam ubaas muwarisan lam ubaas muwarisan kenn yabaluma fii pour may jéem di leen expliquer affaire affaire matériel waaye raxma xilaaf bayn almasixiya walyahudiya dammu alkitaba الكتابين لبعض الإنجيل للبعض الإنجيل والتوراة وعمل الكتاب المقدس لأن الإنجيل ما في أمر يتعلق بالحركة الحياة وفي التوراة ما في أمر يتعلق بالروحانية فشاء الله أن يجيء بالإسلام الذي يجمع الأمرين معا المادية والروحانية اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم انظروا حولا كيف الإسلام يطبع مسلم الإنسان لا يطبع على الرحمة المطلق ولا يطبع على القسوة المطلق ولا يطبع على الذلة مطلق ولا يطبع على العزة مطلق إنما تكيف الأحداث تكيف الأحداث فيكون ذليلا مع المؤمنين ولكنه عزيزا مع عزيز مع الكافرين يكون الشداء على على على الكفار ولكنهم رحماء بينهم محمد رسول الله dama bëgg ñu ñu seet aaya boobu parce que ñu ngi nekk si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aya bu nga xam ne bii mënoo ko dégg mukk su fekkoon ni indi woo dialectique te ñu bare yaakaar na ni dialectique méthode de pensée la bu nga xam ne bii mënoo ko appliquer au niveau de la religion dafa am benn unité contradictoire bi si nekk waaw muhammadu rasulullah walladina maahu du moom rek ashidaau ala alkufar ashidaau wa ruhama baynahum dafa jël ruuxaaniya bi nekk ci yontu yàlla Isa jël maddiya bi si yontu yàlla Moussa jël ruuxaaniya bi nekk si masihiya jël maddiya bi nekk si yahudiya boole leen islam ñëw ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen ñoom ñaar ñëpp ba pare nag dépassé leen islam mi ngi lay jàngal ni ni nga war ittewoo affaire ruux affaire spiritualité noonu nga war affaire matière dans l'islam amul contradiction maa fi tanaqut bay na am rey à la fois ruuxaaniya wa maddiya fi anin waxid amul contradiction amul comparaison su fekkee ni li war ruuxaaniya war nga ko jox ruuxaaniya nga jox ko ko su fekkee ni spiritualité la nga jox ko su fekkee ni matériel la nga jox ko parce que yàlla su na nee soo dee julli na nga na nga na nga suturaal sa awra soo dee julli na nga suturaal sa awra nan ngay suturaale sa awra sa mbubb mbubb mi ngi si laata jot ban fan la jaar ba nga jot si ñi ay ñax bi ñu transformé mu nekk wëñ ñu yóbbu ko ci filature yi ràbb ko ba mu nekk mbubu ñi commerçant bi dem yóbbu ay camion jënd ko en gros nga jëm jënd ko au détaillant dem jox ko tailleur bu nga xam ne bi ñaw naka ba nga mën jaamu sa yàlla donc yaa ngi nekk ci spiritualité boobu ruuxaaniya boobu waaye ruuxaaniya boobu mënoo ci am mukk ndam def ko ni ko yàlla bëgge soo jaarul si maddiya ndax ki tax nga mën suturaal sa awra amul dara lu nga xam ni di diine la yéen ñëpp yére yi ngeen sol fii xëy na ay catholique ay ñokk ñokk ñokk ñoo ko ñoo ko liggéey jox leen ngeen sol ndax soo nee man affaire adduna intéressé wu ma sama pap siñ mbay si abdu wax na démb benn wax bu am solo mu ni ku naan day dëddu àdduna te dara te teguwul solo looy dëddu soo dee dëddu àdduna day fekk àdduna nekk si sa loxo nga téye ka nga am choix mën ko téye wala nga bàyyi ko waaye ko xam ne que dara teguwul sa loxo looy dëddu def na si émission bu am solo mën naa wax 2STV ñu ñu tegaat ñu tegaat émission boobu émission bu am solo la li muy posé problème madiya wa problème ruhaniya si aaya boobu muhammadu rasulullah walladina maahu ashidaau alkufar ruhamaa baynahum donc yàlla yaxtalitu bi ruhaniya fi lmasihiya walmadiya fi yahudiya wa yajcaluhuma diinan waahidan taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana xoolal aaya bi fi wujuhim min asari sujud yëpp ruux la waaw rukkaan sujjadan nee na yonent bi ñu ngi ñu ngi sujjoot ngi rukkoo ne dañu sujjóota sujjóot ba màndarga sujjóot bi dafa nekk ci seen jëf di leer kon ruuxaaniya la ba mu jeex tàkk spiritualité ba mu jeex tàkk min asari sujjóot kalaamun ruuxaaniyun kullu salaatun wa xuduucun wa ishraaqul wujuud simmatu salaaxi fi lwujuud fi lwujuud zalika masalahum fi tawraati li anna tawrata xaaliya min haza kulla tawraat amul ruuxaani masalahum fii ta day joxe misaal yu nga xam ne waroon na nekk si biir tawraat nekkul si biir tawraat su paree indi ay misaal yu nga xam ne waroon na nekk si biir injil te nekkul si biir injil wa masalahum fii injil bana injil ما في المادية أبدا الروحانية كزرع أخرج شطأه فآزره قواه xam nga léegi wax na ruuxaniya wax na julli wax na eh, rukaan sujjadan simaahum indi na ko leer gi nga xam ni mooy jol bi ci seen kanam ndax sujjóot yu bari yi ñuy sujjóot waaye déglu leen bu baax li ñuy wax indi na lu nga xam ni lii plante la ay ñu koy waxee al bana al ah? ay njëmbët Ah, gàncax du gàncax sax nu ñu koy waxee waaw ah. non non semence na jiw la bu nga xam ne bii dugal nañ ko si biir suuf arrosé ko ba mu commencé meññ euh, liñ koy dundale dem na ba màgg màgg boobu mu ah, tomb du tomb lii moo gën fort bi mu demee ba màgg fa azaru fa azarahu qawwaahu fastaxlada fastawa ala suqihi nee na mu gëm ba màgg ba commencé gindi gin génne bànkaas boobu yi yëpp amrun maadi fa ka anna al islam jaa li tajmici bayna almaadiyati almasixiya مستنيرة بروحانية المادية مستنيرة بروحانية لولا لولا يالي عندي nee na mu commencé jëmbët mu commencé di màgg waaw baykat bi su ko gisee kontaan baykat bi su ko gisee kontaan ndax baykat bu jëmbat dara mu commencé di ñor su jëmbatee gerte gerte ji commencé di ñor day kontaan kaan al islam yajma bayna al madiyati mustanira bi ruhaniya mustafida bil madiya xam nga va-et-vient dialectique boobu al ruhaniya al madiya mustanira madiya bu nga xam ne bi matière bu nga xam ne bi lan moo ko lan lan lan moo ko leeral mooy ruuxaaniye spiritualité ak spiritualité boo nga xam ne bii diine islaam du la yar si ngay wax ni matière amul importance parce que matière sax amul importance du ngeen toog fii yéen yëpp kon nag matière bi si boppam il faut nga yëg njëriñam il faut ñi nga xam ni ñoo nekk si wàllu spiritualité ñu yëg njëriñam te l'islam daf la wax ni su fekkee ñu toppatoo matière ñi toppatoo matière ñoo lay dominer lu tax monde musulman reculé ni mu reculé ñi toppatoo matière ñoo ñu dominer yàlla waxul rek nga topp diine di julli di waral yooyu matière bi na nga ko toppatoo soo ko toppatoo ñi ko toppatoo ñoo lay dominer te daan la yóbbu nga xam ne fii du la neex waaw kun ahlul madda waamurul arda wadribuha moo tax mu indi exemple yooyu fi tawret indi ko fi injil waaw masalum fi tawret li qiyam allati tarakaha al yawma wa masalum fi injil li madiyati allati tarakaha al almasihiya diine islam daat leen boole ñoom ñaar ñépp almadiya al shidda mooy madiya al ruhama hiya al qiyam ruhaniya aw qiyam ruhiya tarahum rukaan sujadan xaadian liman axlaq wa liman anam wa liman awjad rukaan sujjadan xaadian liman axlaq wa liman anam wa liman wa liman awjad simaahum fi wujuhihim mushriqa ishraqa yajibu uh, yajiu min simmati taqwa wa min simmati salah gis nga leer googu nekk tomb boobu nekk fii min asari sujud sujud ju bare jooju ba sa mu am benn rond bu nekk fii nee na loolu mooy leer bi nga xam ne bii sujud rek moo ko mën joxe ragal yàlla rek moo ko mën joxe ka anna ummata al islamia tajamac bayna al amri al qiyam alsani almaadiya lilxayaati li anna al qiyam la yumkin an yuctiya samaratiha illa ila al insan illa isa najaha al fi amaliyatin maddiya li nga xam ni moo tax te valeur éthique ñu taxaw fu dëgër a dëgër mooy nga sukkandikoo si affaire nga sukkandikoo si affaire matière su fekkee ni weddi nga ko isma tara alam tara anna allaha anzala min alsamai maan fa axrajna bihi ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان ألوانها وغرائب السود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء gis nga aaya bi lépp a ngi si waaw meññeent yaa ngi si bàyyi yaa ngi si doomu aadamaa ngi si aljimaat ñi ngi si li nga xam ni les êtres inertes ñépp a ngi si parce que yàlla bëgg na wone si aaya bi rek ni yàlla waxu la nga nga sukkandikoo si lu nga xam ne lii mooy spiritualité bàyyi rek ma donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu yëpp la incarné te jamono ji ñu nekk fii si Sénégal nga xam ne ngi wax affaire yu éthique suñ dee wax éthique itam nañu xam lan la ñuy wax bu baax a baax éthique bi waxul ni da nga war bàyyi jaamu ya da nga war bàyyi da nga war bàyyi affaire u matière parce que loolu su fekkee dugaluñ ko si bopp ñu ñi si bés bi nga xam ne bii mooy bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si saar yi nga xam ni aaya bi nga xam ni muhammadu rasulullah wallazina maahu ashdaau ala alkufar ruhamaa bayna il faut ñu leeral ko mu nekk seen yóbbal parce que dañu nekk si jamono ju nga xam ni ji jamono ñi ngi jooy te suñu rongoñ feragul ndax Cheikh Seydi Mouhamed Mansour bi fi jóge li ñu si wax sax bëgguñu ko woon wax wax dëgg yàlla mais dafa nekk guddi yonent bi ma amoon jàngat bi si aay bi nga xam ne ñépp xam nañ ko ma bëggoon leen woon rek ñaari aspect yi nekk ci aaya bi ndax aaya bi danga nga koy romb alors que problème bi nu am ñun ci suñu dund tey aaya bi moo ko posé moo tax ma indi woon ko di ñaan yàlla ñu yàgg fi ñëw ah, di leen fi yàgg fekk di ñaan yàlla itam ruuxaaniya boobu ma doon waxtaane di ko waxtaane ci bésu gàmmu fii ci Tiwaawan ci ñun tijaan yi yàlla may na nu ñu boole ñaar ñëpp question matériel et question spirituelle amoon su ma toogee si jàkk ji kër sëñ Babacar xam nga laay seetaan sañse yi tijaan yi dañuy sañse ba tiital na tariqa bi lii may nett li fi yëpp moom noonu la nu seen xaj mali yare su fekkee werd la su fekkee jàmm yàlla la kenn jiitu si tijaan waaye su fekkee solu ba rafet itam di daagu si mbedd mi kenn jiitu bu si tijaan donc li tax ma indi ñaari aspect yooyu fi ma jëm si woon mooy muhammadu rasulullah walladina maahu ashidaau ala alkufar ruhamaa baynahum ruhamaa mooy spiritualité bi ashidaau ala alkufar mooy matière bi mën naa ko développé lu yàgg yàgg waaye si gàmmu laa ko mën développé mënu ma ko développé si takkusaan waaye fi ma jëmoon rek mooy fii mooy l'héritage mystique de l'âge Malick Sy man dama leen xool si biir zawiya bi damay faral di xool sama pa Abdou ki fi jóge sëñ Mansour su ma saan toog si place bi ak ni mu ko mëte ndeysaan ak ni mu bëgg sañsee tey damay xool sëñ Abdou ak ni mu marié couleur yi ak ni mu yuwee man ni taalibe yi kañ seen sëriñ la ñuy roy xooleen ñi nekk fii yëpp kon li mu doon waxtaane yëpp yéen a ngi koy jëfee kan moo tax ngeen koy jëfee am ay sëriñ yu baax yu leen teg si yoon Tiwaawan lu mu am lu leen ko may ويجك dafa dogal mu am sunu baay bi fi jógee di Cheikh Seyd Mouhamadou Mansour dañu ñëw di nafar ay jaar-jaaram am na ñu bare ñu ko jege ñu ko xam ñu ma ko gën xam fuuf dégg naa defe naa ki ko gën xam mooy Cheikh Ahmed Tijani xalifa tey moom ci mooy ki nga xam ne moo gën dégg naa si benn waxam mu naan su feebaree sax sëñ su feebar su sëñ su feebaree mu feebar kii taawam kii la ko tuddee taawam kii la ko tuddee kon su fekkee ni am na ko xam sëñ Mansour sam pap su fekkee ni am na ko xam sëñ Mansour sam pap moom muy gérer xilaafa sëñ Babacar traverse xilaafa sam ma Abdou nekk porte parole am gérer xilaafa jege ko lool di tànkom di noppam di bëtam kon nag su fekkee ni am na ñu gën xam sa ñu xam sëñ Mansour ñooñ ñoo xam sëñ Mansour waaye yàlla dogal na ma jege ko sëñ Habib mës na ma wax ni ma man li ma jaaxal nekkoo fi woon yaa ngi woon bitim réew te danga jege mag ma ne mbaaxu mag ñi la waaye moo am benn mbir bu ma jàng si moom sëñ Mansour ma bëggoon leen si laay biir rek xam naa am na ñu jàng si moom ay junne mbir waaye boobu bëgg naa ko partagé ngeen jikko la bu nga xam ne bi mi ngi ko jëlee si baayam sëñ Babacar sam baay dafa ni ma loo gis am na mode d'emploi ne mode d'emploi sëñ Moustapha ne mode d'emploi du rek ci garab dem seeti médecin mu jox la aspirine ni la ñaar suuba ñaar midi ñaar ngoon déedéet nee na mode d'emploi si lépp la nee na mbokk dafa am noo koy jaaree soo ko jaaree mu jag soo ko jaagleelu noonu du jag sëñ Babacar nag loolu la loolu la teel comprendre sëñ Babacar radiallahu taala anhu dafa tudde doom wujju yaayam yépp dooraa tudde doom yaayam kooku ko ñemee def tey jéggi fi sa ndey bi la jur dem naan yaa ngi tudde doom sa wujju ndey ku ko ñemee def sëñ Babacar dafa tudde doom wujju yaayam yépp ba nu jeex muy dooraa tudde maam Roqoy Ñaay doom sa maam sam sëñ Babacar dafa tudde doom ñi mu bokk ak baay ba pare dooraat tudde ki mu bokk ak ndey ak baay muy Sëñ Ahmed Si loolu la def loolu nag sëñ Mansour doon naka si moom sëñ Mansour wujj yaayam yépp woy na leen dama ànd ak moom mu ni ma damay dem luga te yaay boroom Louga duma dem Louga te yóbbaalewum la man que dama ñëwoon en mission maa ngi nekk banque ba damay dellu mu ma déedéet ñëwal gunge ma trois semaines laa fay dem ma wax wax mun ma trois semaines te dama nekk si liggéey jàmm mun ma ñëw ñu dem mun ma indi sa xale yi ma dajale ñoom njaga ñëw ñu dem ñu toog fa trois semaines benn bés mu wooma mu ni ma sunu sëriñ yooyu ñëw di ñu ziar si tey ma ni ka ñan la mu ni ma njoboot si xaaj El Hadj Omar Fouti mu ni ma sa maam si Hadj Malick def na benn xasida si El Hadj Omar Fouti sa maam sëñ Babacar def na xasida si El Hadj Omar Fouti dama bëgg xasida bi sa maam si Hadj yi def na jox ko sëñ Mansour bu sëñ Abdou su ñëwee mu firi leen ko pour bégal leen ndax ñun dëkku xam-xam lañu xam-xam lañuy béglante mu ni ma am na xasida bu sama sëñ Babacar def si El Hadj Umar Fuuti dama bëgg suñu ñëwee nga firi leen ko yow ma ni ko amul benn problème ma dem wax ko sëñ Mansour ñu daje ña nga fa toog 9h ba 3h du matin famille bi yëpp ñëw ñu baax lan sëñ bi bégal leen si xam-xam bégal leen wayal leen seen maam ah, nett leen suñu maam Seydou Nour taal ñu mu nekk nag moom ñu mu daan wax ak moom ci mbaaxam. bi nu paree mu ni ma ëllëg damay ziyaare ji sama Malick Sall ne ko soo si guddi gi trois heures du matin ba six heures góor gi toog na bind na benn xasida man yóbbu ma préparé na xasida ñu ñëw ba si rawdu bi rek mu jox ko Mansour ni ko jàngal mu ni almarikaani nettali si biir wayi bi sa maam si xaaj Malick ñëwee Louga fekk kafa bu ni fii maga ngi fi sa maam Macky Sall maga na sa mu ni maga ngi fi au sens propre et au sens figuré ñëw fii Tiwaawan su du woon sa maam Malick Sall Tiwaawan du mel nii mu mel tey kon si xaaj Malick fa la toog ba ngee xam ni wilaya borom wilaya fi nekk te ñaari kuy mun nun naan si benn mbalka sa maam si Hadj Malick si yaram si tegginam si mën joxe cër si dégg diine si dégg àddunaam mu ni fii du fi toog ñëw sanc fii si Tivaouane fekkoon na Tivaouane le grand carrefour du Kayor mu ñëw toog fii sa maam Mansour sa baay Mansour wax ni yàlla si xikmaam teggin boobu sa maam Seydi Hadji Malick seddoon sa maam Malick Sall teggin boobu tax na El Hadji Malick jur sëñ Babacar sa maam Malick Sall jur sa maam Umu Xayri si way wi dafa tagg sa maam Malick ba mu neex ko mu jël tagg sa maam Umu Xayri ba mu neex ko ne yàlla si xikmaam teggin boobu El malik amoon si maam Malick Sall yàlla def seen ñaari doom daje ñu jur si kan ñu jur ci sëñ Moustapha Sy mu jël xasida bi tagg sëñ Moustapha ak sëñ Moustapha ni mu meloon dès cinquante et un la ko defal xasida bi Cheikh Tidiane bi di taawu sëñ Mansour juddo ci la def xasida ci sëñ Moustapha way wujju yaayam way bàyyi wujju yaayam way doomu wujju yaayam way sëtu wujju yaayam parce que 17 vers ci xasida yëpp si man la ko consacré te man yemuma sax yow tolluwuma sax foofu si martaba muy benn mbaaxam bi sama maam asukan génnee àdduna mu def si moom benn marsiya bu doy waar gis nga marché boobu su ma bëggee nag dàmp sama xol si dem bi sëñ Mansour dem xasida boobu lay jàng li nga war dëfale nit yëpp sëñ Mansour jox na nu ko avant mu dem li mu war dëfale nit yëpp lan la wax hal min xuluudin bi haza daari lin nasami min baadi martaxala almuxtaaru zu azami وارتحل السحب حقا بعدما علنا إلى المقام لليل الخير والنعم من بل كل نفس وإن طال إقامتها فالحين قال نميو وقل فالموت له وقل المنون فالحين فالحين يدركها ولو على الأطم li nga li li nga waroon xalaat pour yedde ka sa bopp yépp sëñ Mansour bind na ko yaa man xada yaa man xada naaxiyan li siti aichatin ruuta alquluba xuluba alqawmi ne na ko yow mi mu ñëw di ma tàggee soxna assukan tiital nga nu parce que tàgg bi nga ne koy tàgg moo ni won ni soxna su tedd si dem na waaye ñun tam ñoo si toog هلا نعيت التقى والدين مع الرحم كما نعيت الهدى والجود مع الرحم نانك كيغا تاغي كان لا جوب nga tàgge kan nga tàgge ragal yàlla nga tàgge kan nga tàgge diine nga tàgge kan nga tàgge yërmande nga tàgge nee na yaa surmatan lil xibaali l awni is fuqidat ummul masakini wal maxrumi wal xachami yow mi nga xam ni yaa dagg buumu ki nga xam ni moo doon dimbali ñépp bi nu pertee bi nga xamee ni perte nañu ummul masakini ki nga xam ni mooy ndeyu miskin yi wal maxrumi maxrum nee na mooy nit ku nga xam ni ki mbub mi dafa rafet lool waaye poche bi dara nekku si waaye soo taseeg ummul xayri wala nga taseek eh, sa maam asukan lépp lu manqué woon sa poche bi lan la ko jox nga continuer di sol somb mu rafet wala xacham yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu joxee si biir kër gi ñooñu ñëpp bi nga xamee ni gaañu na ñoom ñëpp ñoom ñoom nga tàggi man lii bi nusxin saxihan daiman abadan man lii bi lutfin jaliyin gayra munsalimin nee na man Mansour bi nga xam ni moom moo ma yar soxna asukan fan laa jëlee ti ku may ku may yedd ku may kan laa jëlee ci ku nga xam ni kii su ma mu xëcc ma kan laa jëlee ci ku nga xam ni kii daf ma ñeewent kan laay fan laa jëlee ci ku nga xam ni kii daf ma yërëm tagg na sa maam asukan si marché boobu dellu bi nga xam sa mbajon um xayri génn àdduna mu way ko wayu rafete sam sa mbajon umu ni mu nekkee woon si wàññi te bi muy nettali xasida boobu sa maam abdoo ngi toog mu koy jàng nag si ziar ziar général si gàmm sa mbajan umm maa ngi dégg sama ab mi ngi naan que bul fàtte waañ wi de bul fàtte waañ te mi ngi jàng mu ni ko julusuha daiman fi ma fi matbaxi uhida ramatu matbaxihi shabihin masbalati mu ni soxna si nekk bi mu daan nekk si waañ wi nekk fa suba ngoon soo mësee xool doomu taal bi nga xam ni fa lay teg kàddir ga doomu taal bi dafa mel na dafa fay waaye xal yaa ngi si biir doomu taal bi ne subaa ngoon mi ngi togg ndékki subaa ngoon mi ngi togg añ subaa ngoon mi ngi togg reer waaye mu ni tey dem na waaye am na ku ko wuutu ku ko wuutu mooy kan mooy sunu bàjjen Zeynab tagg sunu bàjjen Zeynab ba pare ni suñu bàjjan umu xayri ak suñu bàjjan zeynab jikko yu ñu yore bettuñu ci kan lañ ko jëlee si seen ba ci seen yaay seen waajur bu jigéen soxna asukan dama bëggoon rek ngeen xam dimension boobu ci sëñ Mansour lii yëpp mënoon naka si bañ fekk quatre-vingt-dix-neuf seen famille sénégalaise lii du leen si fekk fekk sa wujju yaay nga koy way di way baayam di way ay doomam kon nag yal nañu ko yàlla fayal wax dëgg yàlla nag dafa mel na moom dundoom yëpp yiw la waaw ala axirul anfasi daawim bi fikrihi zakiyul xijaay yowmal firaaqi yahiibu nañ ne sëñ Mansour dundam yëpp ba maamam si Hajj Malick wax la doon def nee na bésu séparation bi bés bi nga fiy toxoo jëm alaxira nee na nit ku nga xam ne kii saxaw ñor na te ñor na ku sa xel ñaw te ñor ne bés boobu daa ko bàyyi xel wala nga sax si di xalaat lu mu yàgg-yàgg dana ñëw te nee na bés bu raglu la waaw nee na bés bu raglu la nag dafa mel ne sëñ Mansour bés boobu mosul jóg si di ko bàyyi xel parce que xam na ni dana ñëw waaye dem na ñi ngi jooy te sunu rangoñ feragu waaye am na nu yaakaar ndax ki ko wuutu muy sunu Pape Cheikh si xam-xam bi si xel mi si dégg bi mu dégg àdduna xam bi mu xam fi muy teg tànkam fan la ñun ñi ko yàgg dégg bi nekkee xale ba tey yàgg naa di wax ni moo tax ma def politique à l'âge de treize ans xamuñu ko waaye xam nu ay idéem ñu de am nañu yaakaar wax dëgg yàlla nag yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas te insha allahu taala yàlla du ko tas nit ku nekk loo am lu nekk na nga fexe ba xam li la ko may lan la lii lu nu ko may mooy sëñ Hajj Malick waaye ki nu ko may mooy sëñ Babacar Sy bi fexe ba saxal lii ñi ko wuutu su saxalul woon lii xëy na fii mu àgg tey di fi àgg ay rakkam yépp nag sama maam Mansour sama maam sama maam Abdou taxaw ñoom tam taxawaay bu rafet sama Abdou pendant 40 ans waaye ñun njobootu sëñ Moustapha ki nu may lii ba nu fonke nii ñu fonke takkusaan bi fonke ke nii gàmmu Tiwaawan bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seyd Mouhamadou Moustapha kon nag ñoom dañuy jëf te aji jëf wax doon jikkoom Sow ñoom Ahmada ñi nga xam ni sëñ Moustapha moo leen tàggat si lii moom si boppam moo leen formel boppam jox leen si ndigal ba mu mel nii tey kon nag fala budda ñoom amel naa leen jukkal amel naa njukkal Pape Sow amel naa ko mage amel naa ko bureau bi amel naa ko Baye Babou amel naa ko Khalifa amel naa ko daal jumelage bi yépp nag di si seppi nag seen jëwriñ seen responsable moral Sidi Ahmed Sy lii yëpp moom la ak woyafam ak uuf bi mu mën uuf njaboot ji ak xam ban sens la Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha joxoon leen ñoom comme kon nag ñi leen sant di leen gërëm di sant soxna soxna yi ñoom ñëpp elles sont présentes massivement di sant suñu ay taalibe yu jógee ba Bruxelles yu jógee ba Allemagne xam naa ñàkk xam place bi moo tax ñu yéex a ñëw ñu jóge ba Afrique du Sud waaw ñu jóge ba Suède ñu jógee ba Italie ñu jóge ba Espagne ñëpp a ngi fii ñu jógee ba Paris bu ñu jógee ba France ñëpp a ngi fi ñu jógee ba États-Unis waaw ah. maam Biram Samb ngi nii indaale na toute sa famille parce que sama maam Modou Issa Samb yëpp ñëw na bugguma tudd parce que su ma tuddee kenn tudd ñëpp yal na yàlla yàggal taxawaay bi. bépp yiw bu yàlla séddale pëndal bi nu pëndal suñu tànk pëndal suñu ay dàll ba ñëw fii ak yaakaar biñ si ak yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas dama am ah hmm. wax naa leen demee non ñu indi fi ñu daan indi bëgg nga soppi ñi jàpp si mbir mi ba mu agsi fii yépp nag maa ngi leen sant si turu jumelage bi di leen sant si turu xadra Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha yépp nag sunu ay waajur yu ñu fekk fii ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax ni bi sëñ Moustapha génnee àdduna ba tey sunu bët mësul xonq ndax taxawaay bi ñu taxaw te kenn jiitu ci kenn muy Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour xalit bi bees bi ngi ñaan yàlla fépp fu mu bëgg yóbbu tariqa bi yal na ko yóbbu fu weesu fi ka baayam yóbbu woon fi ka ay baayam yóbbu woon fi ka maamam yóbbu woon fi ka magam ji yóbbu woon yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yal na ko def waaw ñu ngi nuyu di gërëm itam le daayira des étudiants pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli exposition bi ñu def rendre hommage à kii rendre hommage à Cheikh Seydi Mouhamed Mansour seen journal bi nag dégg naa cassette yi ñu génne woon DVD bi yëpp jënd nañ ko journal bi tam bëgg naa bu mu des na ñëpp jënd journal bi parce que ay étudiants am amuñu ay moyens ñu góor góorgóorlu di ko génne ñun rek ñi nga xam ne ñoo nekk dans la vie active ñoo leen mën dimbali donc jënd bi ngeen jënd journal bi même soo ko mënul lire daa am sa benn doom wala sa sët bu ko mën liir te en même temps day nekk soutien si daayira bi génne nu ay t-shirt t-shirt yi itam rendre hommage pour delloo njukkal Cheikh Seydou Mohamed Mansour loolu yëpp itam daf leen di dimbali si activités yi nga xam ñoom suñu amee doole daayira étudiant bi nu amee doole des moyens yi nga xam ni moom la ñu wut mën nañu yóbbu xadara bi fu sore sore parce que ñooy cadre xadara bi pour ëllëg ñi ngi góorlu mënoon noonu defi leneen ñi ngi nekk seen diggu ndaw seen yaram day tàng waaye ñoom leen itteel li leen soxal mooy xabara bi mooy daayira yi kon nag du ngeen leen soutenir xabara bi ngeen soutenir maa ngi nuyu yëpp di nuyu euh, l'honorable député aw Mbodj de Besdunyak à l'Assemblée nationale di nuyu yëpp di kontaan seen teewaay bu baax a baax ah. waaw ñoom ñëpp euh, képp ku si dugal sa loxo mi may soufflé Ousmane Ousmane Thiam ak ñoom Boubacar Camara ak ñoom Maguette Wade ñëpp yu Diack suñ commencé di lim duñu arrêté waaw suñu commencé di lim il faut ñu lim ñëpp waaw de sorte que euh, suñu waxee kenn rek wax nañu yëpp ñun su fekkee ni tuddu nu leen suñu xol tudd na suñu leen tuddul itam yàlla bi nga xam ne bii gis na leen gis na leen bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh